Atepa bi wax ci lu jëm ci wàllu gars yi nan la ñuy defee yëfu trian yëfu wuyu. ñuy ñuy tege deal bi. na naam dinañu dem nag ci ay contentieux judiciaire mm-hmm. mu mënul ñàkk. Mm-hmm. ñoo xam ne ña ngay tabax danañ ko dakkal ñoo ña ngay tabax danañu ko raser mais déglu ma expliqué la dafa ne saviez-vous ce qui se passe mu ne je le dénonce depuis trente cinq à quarante ans. mu ne les voilà fii la commencé les gens achètent des terrains ay nit ñoom ñooy jënd ay terrains ki appartiennent en réalité à tout le monde. yaa nga dégg dara. Mm-hmm. ay nit ñooy dem jënd ay terrains yoo xam ne ñëpp ko moom maanaam alalu askan wi ay terrain terrain terrain askan wi. Mm-hmm. dégg nga loolu abañee tout le car le domaine public maritime est pour tous. Mm-hmm. mooy li ma expliqué léegi nii déglu de. mu ne il les achète à deux mille quatre cent cinquante francs le mètre carré hmm? le mètre carré puis obtiennent un bail ensuite ils organisent le déclassement de ces terrains hmm. c'est-à-dire qu'ils obtiennent un titre foncier à partir du bail du hmm. mu ne ils amènent ce titre foncier à la banque et obtiennent un million yéen a ngi may bu baax et un million de francs fa par mètre carré enfin ils revendent ces terrains à un million cinq cent le mètre carré mu ne c'est scandaleux tout cela se fait au détriment des citoyens gis nga organisation dil wi ñoo hmm. lal dil ba mafia la mafia <laughs> jaaraa ngi reyee déggoo ma di xoolal dañuy jënd terrain yoo xam ni yow askan bi ñoo ko moom xaw nag ñoom nan la ñuy arrangé wu ba jënd ko jëndee mètre carré deux mille quatre cent cinquante fexe ba lijjanti seen bàyyi dégg nga organiser déclassement danañu coow organiser ba Macky Sall déclassé ngan di maam comme suñu littoralu Guédiawaye su déclassement wu terrain boobu noonu amee ñu lijjanti seen titre foncier ci bàyyi boobu mhm. la ñuy lijjantee seen titre foncier yóbbu ko banque am un million déggoo ma de jaayee que banque un million le mètre carré. Mm-hmm. alors que fay ñu ngi ko jëndee deux mille nangam. <laughs> deux mille. mille lañ ko jëndee deux mille quatre cent cinquante. mètre carré. jaayee un million par mètre carré banque enfin ils revendent ces terrains à un million cinq cent le mètre carré <laughs> déggoo ma de. yow loo jëndee mètre carré deux mille quatre cent cinquante. loolu mooy enrichissement illicite. loolu moom a retrouvé wu ak mètre carré un million cinq cent. enrichissement illicite moom. <laughs> waa waa waa lii ku ci am hectare lii ku ci am benn hectare wala ñaar ñaari hectare. milliards soo déggee ñuy ñuy wax ne dañoo am ay milliards. ci foncier bi di ci am ay milliards. Hmm. mais lii la lii carré boo jëndee deux mille quatre cent cinquante jaayee ko un million cinq cent. <laughs> la xawla wala quwwata. no bénéfice. président daal na ci dem ba jusqu'au bout rek. am na am am na solo. Ah, su bu mbaree bu bàyyi. te ñii sax nekkuñu ay nitu pression. ñii nekkuñu ay ay nit ñooñu nga xam ne xoolal pression da leen di delloo ginnaaw gis nga dëkk bi neexul ba neexul mais gis nga pour nga ne mhm. yàlla na ma yàlla jéggal mais il faut nga tëti. dëgër bopp très da da ngay da da da da da ci sens positif bi laa wax de dégg loolu. ba pare da ngay doon tam ku dëgër da ngay doon ku dëgër. te président Diomaye boo ko xoolee rek wax naa leen fii ma ne leen sawaay jiitaloon punkal mi sax wallaay mooy gën a sedd ci ñenn ñi ko jiital waa ji jàpp ne moo gën a noppi. man nag man nag am man de toog nag moom ay yoon yoon ay yoon fii ci hôtel international bii nii fii nii ci booru Foire nekkul sax nit koo xamante ni nii gars yi xoolal caaxaan da koy paniqué loo lu leer a leer laa la wax. wala foncier bi daal comme ni ko fi soose doon waxee jamono ji dañ cee war a kii de. Mhm. man de sugu. dañ cee man li ma gëm dañ cee war de. li ma gëm mooy président dafa war a auditer même impôt et domaine parce que nag très sincèrement neexul ba neex mais lépp fa lay xewee ñoom ñoo yore affaire yi. ñoo ko yore de. bañ nañ ko bañ a impôt et domaine. comment se fait nit ñi sawaay di jënd nu mu leen neexe di jaaye nu mu leen neexe di am di am këyit nu mu leen neexe mais qu'est-ce qui se yomb de. alors que baadoolo bi nekk fële gosaas sawaay mi ngi am bëgg mi ngi bëgg a poqus mu tëggoo. kii nee na xanaa lii mooy. un million pour cent <laughs> jëndee deux mille jaayee. enrichissement de. waaye doo leen bu dee hectare bi wala ñaata la. ba pare li mooy population toujours mooy victime ñenn ñi di non. Mhm. metti de dafa metti euh, ñu daal di dem ci suñu ñaareelu euh, ponk jamono juñ toll ni maire bu ville de Dakar di Barthélémy Dias mooy daal di sàkku ngir am toogaat ci foncier bi ah. ba ci li nga wax ci foncier bi doyul bi foncier bi yow du jeex de. moo tax nag mënuñu wax lépp non foncier bi après li ci des na mottali ko ci wër def euh, ak ci revue des titres xam naa bu ñu si doon wax fii ba suba duñ fi jógee mais revue des titres mi fi revue de presse monsieur le maire il y yoo xam ne mhm. ils sont protégés mhm. même par l'État ñuy noot citoyens yi boo demee ak ñoom justice ñu ne la buñ demee comme ni nga fi doon wax ma bala fa juge di jël dossier yi di ko jokkalante parce que dañuy subir benn pression fii nii amoon na fi bu gàddaay bi foncier gàddaay dootuñ ko defati soose da nga doon dem xoolal réew mi changé na loxo waa ji di génn du jubilé. pour wal leen du ngeen am ndam sama kaw. mais jeex na réew mi changé na ay loxo di demaat di demaat di demaat jeex na. xam nga jeex na. xam nga yow léegi nga dégg ñu naan la l'état n'indemnise pas l'état ci bu leen neexee. waaw léegi-léegi dégg ñu naan non lii continuité que la continuité de l'état ne me permet pas quand même de faire euh, certaines choses parce que c'est la continuité. Diomaye de lii ma wane moog Sonko wane nañ ne gis nga ay affaire continuité état ay affaire caaxaan la. am na loo xam ne warul ne continuité de. demal ubbi le quotidien bi nan la ko tiitree tey l' état c' est l' par Diomaye. Mm-hmm. qui est Diomaye. c' le président de la république. la personne morale de l' état. dégg nga loolu. <laughs> c' est lui même qui stoppe l' état. ñu doon wax continuité. maanaam il stop les dérives de l' gis nga sugu sugu. olof Ndiaye daf na gis nga ab sàcc buy sàcc rek di raw. tout le temps day kontaan. gis nga bis bu ñu la jàppee ngay xam ne lépp dëgg la. <laughs> gis nga ñooñu noonu promoteur yooyu état doon protéger. Mm-hmm. non na leen lenn fi mu toll nii. nguur gi soppi na ay loxo promoteurs yi surtout promoteurs yi. nguur gi soppi nay ay loxo am na ku ma envoyé message léegi nee na nañ dem aéroport mais li tax ma ne la foncier bi say bomb xoolal aéroport. c'est-à-dire gars yi ñu ngi koy caxat caxatee comme pas possible alors que wax lépp sax alors que foofu mais aéroport foofu zone militaire la en fait parce que bi ñu déplacé aéroport fële ba léegi foofu dañu ko def zone militaire mais demal aéroport mhm, mhm. xoolal gars yi koy caxat caxatee di profité oui des gens du régime de l'ancien régime moo tax président la xoolal daal Dantec lan la ci waxoon président ci dem ba jusqu'au bout gis nga bu ci soree lool la yooxu dina jëm fi nga ko foogeewul de. <laughs> d'accord enrichissement illicite jaara ñu bari dañu yaakaar yaakaar ne da ngay sàcc rek def ci sa poche mais lii Ahmed Aïdara wax léegi li bi Pierre Goudiaby Atepa wax enrichissement illicite munu koo munu koo gën a rëy. Mm-hmm. sàcc yëfu jàmbur jënd ko deux mille quatre cent jaayee ko un million cinq cent c'est illégal. Mm-hmm. moo tax foncier bi ah baax na. doy na waax lu euh, ñu war a wax ci wàllum euh, foncier bu ñu koy bu ñu koy wax fii ba suba euh, duñ fi jógee honorable très ñu jàll ci benn point mais nit ñi buñ jógee mais nit ñi buñ jógee ñu néewal leen doole man fii gàddaay assisté naa fi boo xam ne collectif bi dañoo ñëw monsieur le maire takk seen bâche takk seen i banderole ne terrain yi ñoo ko moom imaginez bu doon mille terrain ñoo fa nekk maanaam mille personne mille mille mille mille représentants la ñuy am te mille yi soo moytu ñëpp duñ ñëw ñu toog nga gis ay mère de famille ñii ay père de famille taxaw. Ah, waaw na askan wi ñu indi police wala ñu indi gendarmerie ne la na askan man tiim naa benn policier boo xam ne keroog bi ko chefam bi ne chargé waa ji mënul chargé ci kaw ay maire dafa hésité il a fallu ñu jox ordre keneen kooku war a mën a chargé. Mhm. léegi population boobu noonu monsieur le maire bu jógee ñu affaiblir ko. kan moo war a doole population bi pour man état la. Mm-hmm. Ah, te état pour mu mën koo doole tamit il faut tamit justice bi impartiale. suuf si daal suñu suuf suufa moom na askan wi am. mais yow promoteur bi moom moo lay yóbbu. ci justice sax ne la doo gagné. parce que non. di wax du n'importe quoi. non corruption parce que day am mémise ci ci juge. sugu day am mémise ci ki nga xam ni moo non c'est trop. li tax corruption bon ci réew. corruption lu tax mu bon ci réew lu mel noonu lay indi xam nga nga war a dem tribunal yow xam nga déjà verdict parce que am na am na foo jaar am na noo def am na noo def <laughs> moo tax corruption baaxul da ngay ñëw suñ la njëkkee convoqué doo ñëw gars yi ñëw xoolal taxaw fa huit heures ba treize heures demaat deuxième convocation nga ñëw di jubilé d'accord déggal lii rek nee na nee na nee na nee na dix mille mètres carrés benn hectare multiplié par un million égale dix milliards day caaxaan. fii am na suy borom alal yoo xamante ne saa bu leen leen ñee de bu ngeen xamoon ni ñu amee seen alal laay di ngeen fàq yat topp leen. mais ñoom est-ce que bu ñu tëddee instant bi dinañ nelaw. nelaw ak ñoom ñoom naturellement bu amul woon sax ñoom bu ñu tëddee du ñu nelaw. Mhm. genre yooyu noonu ngay xool jaar seen kanam yi comme ni ñu koy faral di waxee du pelli nga kii alalam bi fu mu koy jaar. maara day taale ngay feebar. te genre yooyu ñoo fi taxawoon ak denn gouvernement bi fi nekk duñu falu. sàcc bu ñoo doon xeex xeex yu métti <laughs> pour bañ li nu mel rek waaw mm-hmm, mm-hmm. waaye nag yàlla dogal na ne nguur gi. maa ngi doogay comprendre li tax am ñeneen ñi xar seen tànk tubéy ne. waaw Sonko wala Diomaye duñ fi falu. ah waaw parce que ah, <laughs> eh, parce que <laughs> Sonko ba mu koy wax. faluwul sa xoolal. dafa yàgg recevoir soose. Hmm. ci ay audience ci population Guédiawaye mais ku ñëw même discours laa lay tenir même discours conseil municipal ñëpp dañoo toog. ñu ne ma gedd bi nga war a ba parce que yow boo geddee géejawaay ngay xañ parce que dama fa wax benn suur benn info lu doy waar benn kilifa gu ma wax ne ma bépp maire ville bu fi jaar da ngay bénéficier wu trente terrain waaw ma ne trente terrain yi c'est pour le maire ou bien la mairie mm-hmm. une communauté lumbu mooy la mairie nga leen di jox trente terrain jox ay magistrats cinq hectares jox ay préfet presque sept hectares jox waa impôt domaine lu ëpp cinq hectares waa Géejawaay ñoom ñoom xanaa ñoom loolu de bu dee dëgg la jëluma bu dee nag c'est pour le maire kooku moom man keroog ba ma ne man nekk naa maire man ci laa pare ci suufu Géejawaay buñ ko doon mayee sax du ma jël man am ay dara waaye yow yow kii sugu nit kay mënul lu dul lii lii la ñuy déglu yàlla waaw del dem ci rajo yi wax comme ça nga mën a setal sa gis nga conférence de presse ñoom diw de may est génnee ne notification bu ñu bind sama turu wala saa turu ndey wala saa turu baay wala saa turu turu turu punkal gis nga terrain yi comme njaayu drogue la <laughs> comme njaayu drogue la ba doole mel ni ñin mënuñ cee am. waaw eh mënuñ cee jot. ba doole mel ni ñin mënuñ fee dugal drogue punkal yi nga xam ne ñoo fiy dugal cocaïne gaayen ay valeur ay 60 milliards. Ah. kooku daa mën a nekk soo Socé Ndiaye saa Gosaas mii wala wala. saa Ndiare mii toog nii sugu war nañ cee wax de waay war nañ cee wax de. léegi nag xoolal Diomaye Diakhar Faye li mu def nii solution la. ah de. dakkal travaux yi. enquête. enquête yi ñu ci amoon as tuut sax daajalaat nañ yëpp xam nga fi filaawo yi bi ñu koy soccoo noonu desoon na sax yenn bi <laughs> desul dara récemment na récemment nii daaneel nañ yëpp terrain de football yi fi nekkoon noonu noonu yëpp lépp kii nañ ko ba commencé teg seen i kii gars yi nee nañ ñu ngi néewal doole jaara parce que mooy corona émission mais nee nañ ko tey doo déroulé. moo tax ma bàyyi leen ngeen déroulé déroulé ak Socé ak Ahmed ñoo lal dilwa. non lan la ñuy dilué. non jaara corona littéral moom métti. te jaara yow yow foo fas yéene am kër. yaa laal fu métti nag. ñaanal mañ ci yaa laal fu métti. foo fas yéene laal nga fu métti. suufu Dakar jeex na kay bàyyi ma dem xombal sama dëkk. am na ku ne yow yaa ngi liggéey Ndiaye ak a yéen ay bokk fi ngeen di am kër ñoo bokk fi ñu kër man de xaaral ma jéem a wut sax ndàngaan sax. <laughs> monsieur le maire man waa Guédiawaye la man fii laa juddoo. waaw waaw garaawul mais nga muñ. jéem a ko ci xeex sama sama benn tànta sama benn tante dafa may nettali pour revenir ci thème bi rek. Mhm. nee na bi may nekk xale ñu dëkk amokaat su ma daan gis ay tubaab